Ziguinchor amangul li nga xam ni que mooy cas confirmé bu chikungunya waa direction régionale de la santé teg nañu dispositif bi nga xam ne dina permettre ñu mën a identifier bépp cas bu chikungunya. ministère de la santé ñoom def nañ fi benn dispositif boo xam ne pour permettre ñu mën a surveiller maladie maladie yooyu yëpp am na site sentinelle buñu ñu installé aussi fii ci Ziguinchor bu nekk au niveau du poste de santé bu Saint-Jean. te wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla am na ci ay cas yoo xam ne xëy na ñu ngi koy gis ay cas suspect yoo xam ne ngas euh, ñu notifié pour xam ñu testé ndax moom la wala du moom fièvre jaune aussi ñu ngi testé waaye ñu ngi euh, laal bant comme ni ko wolof di waxee kaaw chikungunya yooyu nga xam ne yaa ngi koy dégg dans la région yi nga xam ne yu mel ne ay gu ak yeneen euh, localité wax dëgg yàlla amaguñ ko Ziguinchor malgré la surveillance. moo ngi yëkkati boobu kàddu si daje bi ñu jagleel woon pour xayma programme bi ñu duppee projet investir dans la santé de la mère de l' enfant et de l' adolescent. xam projet ISMEA xam ne am na juróom benni Euh, région ay gox-goxaan yoo xam ne mu ngi fay intervenir 2019 le projet bi démarré bu mu démarré ak léegi gis nañ vraiment ay ay ay ay jéego yu am solo yoo xam ne def nañ ko kon d'une manière globale intervention yi bari na am na yeneen facteurs secteurs yoo xam ne action sociale def nañ fa ay jéego ci projet bi ni nga xam ne moom agence de la couverture maladie universelle aussi am na ci yu bëri yoo xam ne subvention pour que ñoom ñuy mën di enrôler xale yi nga xam ne amaguñ juróomi at wala femmes yi nga xam ne jigéen yi nga xam ne dañoo doon ay jigéen wérlu pour gën a mën a yombal seen faj kon ci loolu moo ñu fi dajale woon tey ngir mën ko waxtaane te di sant vraiment euh, projet ISMEA ak la banque mondiale. ñii di waa délégation banque mondiale di boobu boobule projet wone nañu seen i mbégte loola ci anam bi ñuy doxalee boobu programme.